ràññeeku ci crème boo xam ni kat maanaam boo ko defee sa yaram yooyu duñu la laal ràññee ko ci cuuraay boo xam ni day dàq yooyu ràññee ko it ci ñaari insecticide yoo xam ni fu ñu gis ay gunóor ak mbóot rey ko ràññee ko it ci puudaru mbóot boo xam ni suy mu ne ngalañ waaye it ñu daal di am pat dentifrice am boos vitale ñëpp xam Vitale qualité meew supérieure Vitale ngeen yàgg ànd ak moom mu yàgg leen a gunge. <laughs> cey waa ju baax. vite fait mii rey yooyu day fexe ngeen di nelaw bu baax meew mu neex mii nga xam ni moo yàgg gunge Sénégalais yépp ñu koy wax meew Vitale àndandoog diwlin ñaan yi mi nga xam ni mooy diwlin bu baax bii nga xam ni moom la sonakos indi moo leen di may. kóoru waaju baax. Inno Fashion.

néewi chaise moo la dal nag yow jàkk nag muy koor lañu nekk te koor ànd ak yéen mu mbàyyi yow tamit dangay bàyyi ñu def lu simple invité suñuy copines yi nga xam ne mënuñoo ñàkk ak la famille bu weesoo nag ñu xool luñ def man daal doon nga xew au moins nga xaw a langue tuuti rek waxuma ay langue yu métti tuuti rek yaa ma gën a xam xaw a amusé sax xew la de jënk. yow daal bis bu rëy la ngeen doo xew. waa léegi dinaa la defal dara. bu koor gi jàllee foo ko ma baat bi ah loolu neex na. nga ñu ba loolu foofu nag mooy yow ka foo nii da sëy. entrez. sama jéeg baa ngi nii waay. yaa def nii ci Toumbala Ndiaye. waaw gis nga waaye ah, kontaan naa ma démb monsieur le maire ñëwoon na fi. kan monsieur le maire maire na xaritu sa jëkkër ju baax. <laughs> waa dëgg la monsieur le maire xaritam la ah, bu duun la fi indi. Hmm. ma xam ne su ma ko joxee xaalis bi da ko naan dëndix lekk sa jëkkër xam nga ko amul ngor ci xaalis ci laa dem jëndali la lal bu bees bii. xam naa nag din gisante wut ci suba ak tey moo tax ndax yow doo wax da ngaa boole part ak organisé. loolu moo moom laa la ci jëndal nag ndax dangaa baax xaalis bi nag des na dinaa yëkkati fanweeri junni jox ko wala ma yëkkati fanweeri junni jox la nga jënd ci sa yëre yi julli ndax julli gaa ngi ñëw. ay Aïcha loolu bari na de. ndax yow doo wax dangaa boole part ak organisé ah, su ma defutee noonu amaa na doo solu te dangaa amee nawle te jigéen danga koy teral. yow nag dama lay sant rek di la gërëm. kontaan naa de. waaw kontaan naa trop jërëjëf ma Aïcha. waaye nag maala ma ngay dégg ci mim réew waaye doo dégg maa la gën. baax ñaas na ci kanam fa xas su ko di ni munoo sël moo lag de guerre bam dañ sama jeer bi yow kenn du la wutal wujj yaay gouverneur ba keroog muy. dégg jërëjëf ma Aïcha kontaan naa jërëjëf. monsieur le maire. na mosquée bu ñu ko dencee ba pare ba ñaanal ko damaa bëgg a jaar ci monsieur le maire dafa am lu ñu waxante woon man ak moom premier adjoint au maire la ma waroon a fal dinaa dem lijjanti ci loolu ndax booba léegi mu ne ma recours bi génn recours bi génnul danaa fa jaar nag. bàyyil monsieur le maire boo fa ah. demee. bu fa ah. histoire xam naa la. histoire te la seer def. keroog ni ñëw nga def ko bu ko defaat. bu fa histoire de. tamit man duma xeexatuma xuloo ma xuloo ma de.

Дека ku kukamanti. Nada dia Korea, Gani ma? Duma si deba, duma. Baca dulu itu No duma wa. Aku na bayangin dengan bindon sebelum not ni. Mentit na ciao. Nande. Melo tu je bintu lagi di waktan. Nande ma jap kini. Men kumasa nak prepare. Sen kuma awaki bidinyo. Neki esku nit lawala dan. Dal top punya, Kan je fas jom mau hati. teel na man bàyyi ma nii rek ma toog man di la coacher. di ma coacher. waaw yow moom mooy booy coacher nit ba mu dugg sëy yow nga ne yow doo coacher sa bopp. ma nga am doom ay sët sëtaat sëtaat sa affaire nga di jënd sama bopp. suuf yaay ngoo ko. kóoru waaju baax bi jar na seetaan. yeewu leen yi gën a jongaw waat Anta xanaa dangaa teggi nag téyeguma ko li jéeg bëgg ban natt lay teggi yow tamit ah boo ko woon nat sa moroomu jéeg mais man damaa yor lu ma lu ma lekk bay yor lu ma nattee ah, la fakal la allah nii nga def yaay xaaral ma expliquer la hmm. dem monsieur le maire moo fi ñëw di seet sama nijaay fekk ko fi fekk fi bàjjen Aïcha jël xaalis jox ko te yow xam nga ni bàjjen Aïcha dafa maa bëgg mu dem jëndal ma lal bu yànj bii àndil ma ko gisoo nu rafetee gisoo nu rafetee ñoom bañ lay jëndal jëndalal moom mënoon nañ laa jëndal jëndalal bu gën a yànj bii di ay yaay ay yaay mooy waxe la ba nga sëy ak moom ba léegi amoo ab lal mënoon na laa jëm jéem a jëndal lal boo xam ne sax moo dàq bi ah changel la chambre à coucher changel la sa armoire bi waaye defalu la dara naan la lal bii la la jëndal ci ku musta am lal waaye ba tey baax na Eh, lu mau bëgg a wax sax korte gi lah ñaata saja ke sa jëkkër yaay lii moom doo ko sax gëmee sama ndijaay nee na dina ma hmm. jox cent cinquante mille ci korite bi ren fii la fël ak man yow cent cinquante mille moo tax nga naan yaay kii dina ma jox cent cinquante mille man damaa defe ni danga naan yaay kii dina ma jox ren téeméeri junni ma solo ah xeeb naa ko ay yow antal mu doon yow xanaa cent cinquante mille yow tout fait nga koy jende turfet yi ñu ñëw di wékk sax ëpp na cent cinquante mille yow laajoo trois cent mille boog sax xotti ci waaye léegi man mi sanday nu may def ah normalement tey jii góor ñi ne fii dañuy xotti seen jabar ba xotti waaleel seen goro waaye man daal nii rek nga naan trois deux cent cinquante mille la ma ko yaa xam sa affaire la léegi man waxuma loolu lan ngeen di togg tey ndogu ah bàjjen Aïcha nee na ma togg laax def ci vitaale laax mooy yéen xanaa dañ leen a digal saraxu laax ah laax fonde rek mu xam sa yéen daal loolu rek man vitale bi ciy dem sax a tax ma di ko lekk waaye kon du ma ko lekk ah di nga lekk kon nga ma nga yow soo moytuwul fii doo fi korte xam nga lu tax dangaa sob lan mooy sa yoon ci sama xaalis ak monsieur le maire ba ngay encaissé loolu naa ko ñoo bokk ndey ak bàyyi lu sa yoon ci enveloppe bi maa campagne maa si sur le terrain lu tax nga jël xaalis bi yow maa jël xaalis bi sa jabar jee nga xam ne ak tóoj nga ko tegaloon mu ci tëdd ma jëndal ko ci lal bu baax mokketi kër gi yëpp maak jëndal laa ko ci mokket waaw yow lu si ci sama laru jabar maa fay tëdd maa fay bërëngu ma fay përie dafa soppa jaleñ dafa géer samay film nem saa lu sa ngañ doo toppatoo fi ngay tëdd tëñi bi ndeyam rek lay bañ mo xass la yobbu la lay bañ ku la ki ca mboore kese lay bañ mo tax ma jëndal ko lal bu baax dindi mokkat bi nekkun ci kër gi mokkat bi mat ba yàqu <laughs> waa ban na an an li dess an xaalis bi dess xaaliss bi dess mi ngi ma denc te yow xaaliss bi dess waaw yaa wara dem takki jabar waaw ah xanaa war nga am yasin sa dirit di circuler touti budi ñeen fukk jundi sax nga bàyyi ko fa ñu bëgg ci ci akara ci wala ñu def ci ndaw dóor wala olele. way way xanaa dañ la dóori laser ba dugg gis xanaa dañ la laser Aïssa lu sa yoon ci li may joxe may gu njëkk maa takk sama jabaru milliardaire moo may defar lépp yori këram jox ma may gu njëkk lu ma koy jox ay xaalis na kat man man kuy kookale sama bopp. damay doon sagal sa bopp da laa sagal sa bopp. doo bi bay tiit seen ju toll ni yow. doo sa laay sagal sama bopp. yow lu sa ci loolu ki neen dina ma jox ma takku ko xaalis bi def nga sakal ki jël nga xaalis bi def sakal ki jënd ay lal li ci des nga dang koy denc maram takke ci jabar waaw merci beaucoup jërëjëf di ko yóbbu may bu njëkk sax sakal sa bop bu dee ben sax da dara mo am ko ci eh man duma ma ah. eh man duma ma yow do joxe car boy tak do joxe car waaw mag boy tak jabar lu may joxe ay cangal yoyu ay man ma waaw doo ko takk in sa pet yow dal da nga jël ñak jom ruy ko ba mu neex nga def ci samewu samew vitale ni ko gunduk nan <laughs> man xolal li ngay wax sax dama ko waxut dama sonu te duma wor bu heure bi ma waxa waxa waxa wax ba sama ñeex safu yàpp xam nga lumay def jema dem tok japp sama njaamur enjoyin sama life ba heure ndogu jot nga subir say conséquences sonu na trop ci yow bu ñibi day am sa xolal naa sama samay bagage te yokku ba yëg di coro bàyyi sàmba di dem dama rek nga mën a guitariste bu ne nii da ngay xalam di dem dama rek du ma la wax dara mooy saf saamu carotte nii wecccc wacccc jollu sangañ ci samay mbir def sama programme ndaw ndaw si nee na ma maa lay jox nga takk maa lay defal lii monsieur le maire indi xamoonu xaalis xaalise campagne xaaj nañ ma sama yaram yëpp ay cicatrices la maa ngi ma agresif. Fune yaramu agresseur fu ne nañ fa ay mais nga bàyyi ba mu ñëw mais di yàkkamtee jël jëndi lal jëndi affaire ay ay man mbaa ant du comprendre mbaa ant li mbaa ant li bax mbaa xeeñu ko Innovation. vite fait mii rey yooyu tey fexe ngeen di nelaw bu baax meew mu neex mii nga xam ni moo yàgg gunge Sénégalais yépp ñu koy wax meew vitale àndandoog diwlin ñaan yi mi nga xam ni mooy diwlin bu baax bi nga xam ni moom la sonaakos indi moo leen doon may kooru waaju baax